terrain yi nekk ba tey ci ñoom lay des waaye Guy Marius Sagna suñu papa jooju noonu ñuy ñaan di ko massaw di massaw njabootam di ñaan yàlla génne ko foofu mu nekk waaw mais ba tey rek ci yow dama lay laajaat mhm. mi lëmbe réew mi mhm. ne la saawaay waa jooju noonu xaw ma bugazel yi xaw ma moom moo si feeñ le yaa dégg ñoom ñëpp ma ne la sum waaye xoola ce yaa ngi dégg ku newul ku newul si bu gudd bi yaa ngi si bu gàtt bi ñoom ñëpp laa lay wax nii yaa ngi dégg du dégg nañ seen dof boobu noonu génn naan xaw ma ay drogue xaw ma ay ay xaw ma ministre yi xaw ma siisaloo xaw ma dof yooy noonu xam nga expliqué amoo déggee mu wax nii tëbakat dal sax xam ni kii wérul ay c'est-à-dire man Macky Sall ay nitam ñëpp may la sum waaye xoola ay nit yu tekkiwul dara ay baadoo la ñoo xamante ni xoolal du dara bu gazeli boobu noonu lan la woon du gardien la woon après xaw ma naan day xaw ma day simb xaw ma lan xam nga ñoo xamante ni nii jànguñu ñoom ñoom maam niveau intellectuel bi ñuy xaañ sax di xaañ fu tubaab nii sax xam nga bëgg jël affaire système tubaab yi sax loolu noonu sax newul seen bopp yi français bu jub ils ne peuvent même pas s'exprimer en français yaa ngi dégg taxaw tëbakat dal ñëw saaga rey Lamine Macky Sall la ñëw jël leen xam nga nekk si taam def leen neex ñoom ñëpp may la sumwaay xoola bu gazeli moo si feeñ la si ay si ñoo xam ne xoola ñu ngi si drogue bi am si ñoo xam ne ñu ngi si yàmbaa bi am si xam ne leneen ak leneen ak leneen si loo xamante nii xoola ay affaire de délinquance la yaa ngi dégg noonu la demee may la su kooku noonu na xoola na yoon def liggéeyam non voilà sénégalais duñ bàyyi mu sedd de ay six mois si kaso yi mu génn lii perpète na dee si kaso bi c'est un malfaiteur baaxul si société bi noonu la demee quoi. waaw ba tey rek baaxul si société ñoo war ñoo war ñoo war dee si kaso bi. mais pas ñi nga xamante ni ay benn ginaar la ñuy sàcc wala lu ñàkk fayda ñu téye leen fa ay cinq ans six ans xam si lu ñàkk fayda. d'accord voilà. ba tey rek ñu ñu ñëw ci ki nga tudd sànq muy Cissé Lo bokk ci pouvoir ba pare di leen xas rek yow ban jàngat nga ci am. waaye dama ne la man man personnellement sama jàngat si man kooku wérul. Ah. noonu la demee quoi man su may wax may wax koo xamante ni nekk na quoi mais koo xamante ni may la sum yow yow yow moom moom moom moom moom assemblée nationale bi mu taxaw di a dal di kii moom lépp li muy wax assemblée nationale ak lépp lu muy yàgg kaas te xam naa Macky Sall la ko ragal wala sénégalais dañ ko dañ ko ragal xam naa mooy loolu ñun faale wuñ la ku baax yaa ngi dégg soppalikul nekk gaynde di jënti wuñ la faale wuñ la ñun xoola lii moo ñu jaaxal Sénégal ama sénégalisme man sénégalais fi laa juddoo fi laa màggee fi laa yoroo da nga paas ñëw fekk ma fii taan man taan fii laa juddoo maintenant ku baax yaa ngi dégg voilà ñun jàppee la nit lépp looy kaas yi tëbakat dal yii nii xoola ñun askan bi saa waay xoola jàppee la nit te duñu la sax déglu parce que lépp looy kaas xoola pour sa bopp la naan ay APR di tëbakat dal int assemblée bi muy wax musul wax pour intérêt Sénégal seet leen bu baax yéen sénégalais li may wax ndax wax na pour intérêt Sénégal lépp intérêt la ak intérêt Macky Sall ñoom ñëpp ci saal bi nañ bokku noonu la demee quoi. ba tey rek foofu lay des ak député yi nekk di xeex di xuloo assemblée nationale dem bay sot Sonko. waaw yow waaw yow saa waay ñii jaay ñoo leen jàppee ay député ñun sénégalais yi ñii ay colossar nañ leen jàppee. peuple bi lañ fi toogal de. dama ni la dama ni la seen bopp nañ fa toogal de ce que yaay seen bopp nañ fa toogal ñàkk nañ fulla ñàkk nañ fayda ñàkk nañ jom yaa ngi dégg amuñu ngor amuñ waaye yow bàyyi ñii bàyyi bàyyi bàyyi ñun sénégalais yi ah da leen jëpp te yàlla tax yéen ñoo leen di ko wax yéen yéen yéen yéen député yu ñàkk fayda yi nga xamante ni yéen a ngi assemblée xoola di xëccoo di tobaka dal yaa ngi dégg naan na ngeen di xeex seen biir Ousmane Sonko bi nga xamante ni lépp lu wax pour intérêt Sénégal la am na si ay député nag yu baax yu am valeur yu si mel ni tam boobu noonu maam jaara faam yaa ngi dégg ak ñeneen ak ñeneen ñoo xamante ni nii xoolal ñu ngi kaasal askan bi mais ñi nga xamante ni nii si salmak bi nañ bokk ñoom ñoo fay indi xoolal yooyu noonu salteel yi ñoom ñoo ko fay indi seetlu leen bu baax li ma leen di wax coow yu fay am ak yooyu noonu yëpp la déggee kii de pour yow si ñuy dugal si ñuy Sonko yow ci nga bokk waaye man Sénégal laay xeexal man ku xeexal Sénégal ku ànd ak Sénégal ànd askan bi man ànd naa ak yow quoi parce que ñoo ñoo bokk gëm-gëm ñoo bokk li ñu bëgg muy Sénégal jëm kanam Sénégal defaru yaa ngi dégg yow sa yaakaar Sonko yaakaar nga ne li muy xeexee pour askan su bi la sénégalais waaw pour l'instant pour l'instant moom vraiment moom xam nga combat am vraiment bi mu tàmbalee ba léegi moom gis nañ ni lépp lu mu wax dëgg te vraiment il est pour là pour le te vraiment chapeau di ko ñaanal ndax yàlla musal ko si cat xam nga musal ko si pexe noonu ak pexe yàq kat yàlla sàmm ko aar ko ba nga xamante ni nii dina dem ba sénégalais yëpp am mentalité boobu noonu ñu àndandoo defar suñu Sénégal parce que suñu taan la bàyyi saa te yàlla tax bàyyi bàyyi kaaw ba bàyyi saa waay xoola ay caaxaan defar ko gëm-gëm moo ko defar yaa ngi dégg waxee loolu moo tax. mais du ay jàpp en saawaay bàyyi ñun jàppaluñu leen en bàyyi ku baax saawaay ñun jàppaluñu leen en ñun soxoruñu bàyyi ñun xoola ñun ñun ñun da ngeen dem ngeen laa ñu ñu xam ñun ñun ay nit yu soxor ñun xoola ñun ñu iñaanee doomu aadama mais Sénégal xoola ñun ñëpp a ko bokku dama si am wal da si am wàll mais moom moo ko yow kase moo dañuy wax ak yow boo wàccee yoon xoola da ngay wax ak yow lu metti wala ni doo dara bu guddee ba gudd moins de cent ans dugal la si melentaan yi coob la ñu di fàtte la nga dem safara parce que alalu askan doo ko sàcc ma ne la sum waay xoola dee yàlla la dugal àjjana loolu moo tax ñuy wax quoi yesaay